voilà mbokk yi ñu ngi taxawoon Boy Baol champion maa ngi saa. waaw maa ngi lay delloo ziar naka mu. voilà ma lay félicité ci victoire bi nga jógee. waaw mais ñu gis ni bi euh, nga am a neex daanee noonu waaw xoolal daan la alors sama adversaire dafa ñëw bëgg a bëri loolu. waaw gis nga loolu lañ koy yebee comme maa am a neex dañ koy mais nee naa loolu. boo daanatee ma si du yoon man ama yoo xam ne tegu ma ko fenn sama kii nag dafa daw di ñëw ma reculer ne ko mu ñëw ma faat ko mu waay noonu la demee quoi. alors ah, gis nañu bi mu bi mu dooree gosa bi ma bagarree encaissé na coup ba ma woon dërëm mais mais mais techniquement lan moo tax loolu dara dama doon dem pour wër pour jàkkaarloog sama cimukaay ndax lam loo gis tegtal la. ok may dem nag ma daje ko gën a dem nag ma taxaw aar bi mu dooree kuul dama ne ko yun mu ne ma fàq mu waaj. mais bëri gaaw. kon yow li ma li dan ma koo yebbee. consigne laa bëre. moom si kaw rek fàq ko mu waaj xam nga mais gars yi dama bëgg a dóor la ay coups yoo xam ne da ngay taxaw bagaar ak ñoom ñu sàcc la loolu nag dootul am dama yeewu léegi si làmb am na yoo xam ne duma ko duma jaay sama combat ci defet laa jóge woon